ay partenaire am Saloum Dieda World Clinique Keur Marie ak Almadina International Travel ñoo leen may seen émission wérgu yaram les mercredis de docteur Konaté. salaamaaleykum euh, auditeurs Seneinfo euh, comme euh, mercredis maa ngi leen Euh, tey nag euh, vraiment dama bëggoon euh, encore remercier suñu auditeurs yi parce que gis naa ne que ne intérêt bi mi ngi gën a jóg maa ngi am ay retour ay appel ñu ngi may woowee même à l'étranger ah ñii nekk bitim réew ñu ngi may woo maa ngi profité pour nuyu Euh, sama ay euh, naataango samay xarit vraiment yu nekk euh, Italie ñu nekk Espagne Ibrahima Ibrahima Sow George George Kimbo Papa Niass ñooñu ñëpp ñu ngi Italie Daouda Ka mi ngi Espagne ñooñu ñëpp dañ may woo Euh, di ma wax di ma encourager par rapport ak euh, émission bi euh, émission bu tey bi nag émission bu am solo la bu am solo parce que ñi ngi dugg ñi ngi nekk ci benn mois boo xam ne mois bu particulier weer boo xam ne dafa xaw a particulier ñu koy wax octobre rose te suñu ay naataango ñoom ñoo ko Euh, ñoom ñoo ko commencé def euh, Sénégal waa LISCA ñi ngi nekk Sacré-Cœur euh, pour wax waxu dépistage ci affaire cancer du sein donc vraiment ñooñu dañ leen war a encourager parce que initiative bi ñu jël nii ils le font depuis quelques années vraiment ñu ngi koy def ay ay at mi ngi nii te. résultat yi dafa positif donc euh, vraiment ñooñu dañ leen war a gën a euh, jàppale euh, gën a encouragé ah suñu naataango yooyu en même temps maa ngi profité pour remercier suñu sage-femme yi encore di leen encouragé sage yi sage-femme Sénégal vraiment dañu jàmb dañu jàmbaare ay jàmbaar yu yu yu yu vraiment ay jàmbaar nañu euh, et précisément sama benn sage-femme boo xam ne moom euh, moom la guerrière laa koy wax la guerrière day naa la guerrière euh, ñu ngi koy wax madame Tap Antoinette mi ngi liggéey fii clinique médical Kër Marie kooku jàmbaar la boo xam ne moom du dellu ginnaaw donc loolu moom moo ñuy amené tey pour si suñu sujet bu tey bi. ñu wax waxu cancer du sein euh, lu tax ñuy ci wax parce que cancer boobu dafa nekk cancer bi nga xam ne que ce soit euh, au Sénégal ah Sénégal Afrique wala à travers le monde dafa nekk cancer bi nga xam ne moom moo gën a law ci jigéen yi moom mooy gën a rey ci jigéen yi euh, par exemple fi ma jox leen benn exemple bu ndaw rek au Sénégal am nañu. lu ñuy wax euh, junni ak euh, juróomi téeméer juróom-ñett téeméer cas yoo xam ne 1800 donc cas yoo xam ne moom moom la ñuy moom la gis par euh, année donc loolu lim bi dingeen ngeen nangu ak man lim boobu takk takku na torop te dina ñëw si at bu nekk ah, at bu nekk par exemple ñoo xam ne amaguñu. 30 euh, ans ñooñu ñi ngi def euh, si ñaar euh, ñaar ñaar téeméer ah 100 ans sur cent personnes ñoom ñooy nekk 10 pour cent ñi nga xam ne ñi ngi am entre 50 ans ak 60 ans ñooñu lim bi yegg na 60 50 pour cent si cancer yi ñu détecté ñi nga xam ne nag am nañu plus de. 70 ans juróom-ñaar fukki donc lim bi toll na ci 30 pour cent donc euh, c'est pour vous dire cancer boobu law na trop law na Sénégal law na Afrique law na à travers le monde donc dafa nekk loo xam ne euh, dañ ci war a wax donc nit ñi dañu war gën a euh, fagaru donc fagaru bi ah moom moo gën faju bi parce que am na cancer bi par exemple en Europe ñoom dañ koy teel a donc dañuy euh, def ay campagne de dépistage yoo xam ne très donc euh, très dañuy gis seeni seeni nit yu feebar yi donc très tôt dañ leen di teel a jël fii nag ñun Sénégal comme en Afrique euh, dépistage bi du loo xam ne dafa am solo torop loolu moo tax cancer yi dañ di Euh, jot ci ay moment yoo xam ne c'est un peu tard donc prise en charge bi pour pour toppatoo ñoo ñu dafay gën a metti feebar feebar bi su duggee rek feeb euh, toppatoo ko dafay gën a metti toppatoo ko dafay gën a cher. donc euh, ñuy ñaxaat suñu jigéen ñi soo leen déggee jarul sax ñuy xaar campagne de dépistage ay octobre rose ak yu demee noonu tout le temps tout le temps tout temps soo leen ci tolluwee rek. Euh, suñu jigéen ñi ñu ngi leen di ñaax ngeen euh, ñëw ci structure de santé yi ñu jàngal leen naka ngeen di def benn ce qu'on appelle autopalpation euh, mooy pour làmbatu pour xool ndax am ngeen ay donj ak yu demee noonu pour ñu mun leen teel a toppatoo teel a bu fekkee feebar bi dafa dugg <coughs> donc. ci kaw loolu ñu euh, expliquer leen li nga xam ne moom mooy euh, facteur de risque yi facteur de risque yi bare na bare na donc euh, wax nañu léegi waxu at yi ah. donc âge de dépistage yi amul âge am na li ñuy wax ci toujours ci facteur de risque yi les les antécédents familiaux c'est-à-dire bu fekkee euh, sa yaay wala sa tante wala même euh, c'est rare mais sa papa dafa am cancer euh, du sein yow am nga ay risques donc pour nga def ko loolu la ñuy wax antécédent fami familial bu fekkee nit ki dafay tux tux bi mun na influence mun na nekk benn facteur bi nga xam ne donc euh, soo ko yokkee ak yeneen facteurs yi donc euh, da ngay may beaucoup plus de chance cancer bi donc euh, mu développé wu ci kaw cigarette bi li nga xam ne moom mooy alcool également soo ko si boolee donc da ngay yokk chance donc cancer bi mu mu dugg da ngay yokk chance ci cancer bi dugg am na beneen euh, phénomène boo xam ne on en a parlé il y a pas longtemps mooy euh, affaire yaram bi obésité ah nit ki bu fekkee donc dafa am yaram également dafay yokk chance donc pour que euh, cancer bi dugg am na lu ñuy wax ay signes d'alerte ay signes d'alerte c'est-à-dire ay signes yoo xam ne du feebar bi ci boppam wante mun nañu ne ah loolu son ko gisee ci nit ki walla ngeen euh, bàyyi ci xel rek tuuti rek loolu war na nekk loo xam ne daf leen war a euh, ñaax pour ngeen gën a mun a jaar donc euh, seet si par exemple ngeen jékki-jékki nit ki. Euh, mu mel ni dafay jékki-jékki tout le temps dafay son ah moom mooy benn ralentissement physique nit ki tout le temps dafay son tout le temps ku mu toog rek dafay naan man na euh, dama mel nii dama am coono si sama yaram donc loolu nit ki bàyyi leen ci xel. Euh, bu fekkee nit boo xam ne par exemple dafa neex deret wala koo xam ne amul benn problème mu jékki-jékki rek ngeen gis ne que ne dafa commencé euh, tàng xol commencé changer comportement loolu tamit euh, nit ñi jar na bàyyi xel ah. loolu mun na orienté nga xam ne su ñu seetee ñu dem ba si ba si biir ñu gis ne que ne ah amoon na benn cancer bu nekkoon suuf boo xam ne commencé woon na développé et bu boobaa. Euh, prise en charge bi toppatoo bi dafay euh, gën a gaaw bu fekkee par exemple nit ki dafa jékki-jékki rek euh, mu am lu ñuy wax ay trouble digestif tout le temps biir bi di daw wala tout le temps muy constipé wala tout le temps muy am ay metit ci biir bi ak yu demee noonu yu mel noonu soo leen ko tàmmee te nit ki tàmm ko woon am en ce moment là tamit mën nañoo seet ñu te suñu seetee ñun am nañu ay jumtukaay yoo xam ne euh, mën nañ ko seetee suñ ko seetee donc euh, bu boobaa loolu euh, mun nañu dimbali ñu teel a gis mbir bi suñu teelee gis mbir bi donc ñu teel a mën a donc malade bi léegi am na malade bi su maladie bi suy ñëw feebar bi ci boppam cancer bi suy ñëw euh, am na noo xam ne noonu lay euh, dikkee par exemple mun na nekk euh, nit koo xam day jékki-jékki mu seet mu gis ne que am na benn donj wala ku ko jege ah ko ah, ñu ne <coughs> am na benn donj donc donj bi mu yegg si ñu seet ko gëstu ko. bu boobaa mën nañu gis ne que ne cancer la waxuma nag euh, euh, saay soo leen gisee donj rek cancer la ah ñu ne docteur Konaté moom moo ko wax donc euh, da ngeen ñëw ñu gëstu ko seet ko xool bu baax ah ak suñu jumtukaay yi bu boobaa mun na nekk loolu mun na nekk leneen ah bu fekkee da ngeen jékki-jékki gis si jigéen surtout ne dafay am lu ñuy wax caakaar ak ay ganglion si si si si si bi jékki-jékki am ay ay ay ay caaxaar ci ci ci poqataan bi surtout bu fekkee si benn côté bi rek la féetee en moment là donc euh, mun na ñëw waa le plus rapidement possible bu mu xaar na ñëw le plus rapidement possible pour ñu seetal ko mun na nekk euh, tamit nit koo xam ne dafay jigéen boo xam ne day toog nii rek am lu ñuy wax ay écoulement c'est-à-dire euh, ci ween bi muy sotteek mu bañ a nekk euh, même bu fekkee du du du soow ah surtout bu fekkee dafay euh, euh, nàmpal ah bu boobaa tamit na daw si donc seet ko te suñ ko seetee xool ak jumtukaay yi donc bu boobaa mun nañ koo trouver donc benn solution suñ ko trouver benn solution donc euh, après faj bi moom mooy dugg te faj bi euh, Sénégal ñetti ñetti ñetti kii la ñetti euh, ñetti façon la boo mun na nekk par exemple bu fekkee teel nañ ko gis mu nekk chirurgie ñu opéré ko génnee ko am luñ ko booleel donc bu boobaa après dañ koy topp rek topp tooko ah et puis dafay am jaamam cancer bi dafay wér Euh, mun na nekk euh, loo xam ne ah euh, chimio dañ koy wax chimiothérapie ay garab nañ lay soit dañ leen di ko perfusé dañ leen di ko piqûre wala daf koy naan en ce moment là loolu tamit boole ko ak chirurgie bi mun na ko dimbali bu baax. Euh, am na beneen euh, fànn euh, faj boo xam ne moom mooy lu ñuy wax radiothérapie nga xam ne dañuy lakk li nga xam ne moom mooy cancer bi dañ koy lakk en ce moment là tamit loolu tamit dafay dimbali day dimbali jigéen ki donc day wéral feebar bi donc essentiellement loolu nañu amoon pour wax leen tey pour. sur le cancer donc ci cancer wu ween donc di ñaxaat ñu jigéen ñi ñu gën a jege ci structure de santé yi et surtout précisément suñu euh, association bi yi nga xam ne euh, elles sont ils sont tellement efficaces waa LISCA donc nekk Sacré-Cœur donc nit ñi nañ leen jege donc pour euh, dépistage dépistage bi foofu gratuit la. donc euh, si octobre euh, euh, rose bi donc loolu la amoon tey pour andil leen donc si si émission bi di remercier équipe bi ah sama technicien Abdel di remercier donc ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy accompagner yëpp di leen jox dig daje la semaine prochaine merci beaucoup.